ñu xam ni pour defar Ross Béthio fokk waa doomu Ross Béthio taxawaat delloo si seen xel defaraat Ross Béthio parce que bëgg nañu di tiitaroo Ross Béthio ñun doomu Ross yu nekk bitim réew wala ñu nekk si yenn dëkk yi bëgg nañ toujours di tiitaroo Ross Béthio te pour ñu tiitaroo rose Béthio ñu ne war a defar Ross Béthio ba ku ko gis bëgg ko ku ko dégg bëgg fi ñëw maa ngi ñaanal euh, Amadou Bekay jóob yal nag yàlla yërëm jéggal ko. Euh, li ma boole kii nag xanaa ñaari yoon lañu ñu mas a tase si àddina 2014 yaakaar naa wax nañ téléphone maak yow waaye man xam naa ko te gisuma ko parce que ñoo bokk Sénégal bokk Afrique ñun intellectuels yeeg si sunu façon ngi liggéey xamante nañu mën nañu xamante même bu ñu mësul gisante ñu bëri bu ñu déggee Moubarak loo mën nañ ko mësu xay na mësuñu ko gis borom xam-xam la. am yenen borom xam-xam suñu nek ci rew mi ño xamanteni yag nañ leena deg mais mosuñu leena gis ki ci la bok té doon microfinance islamique muy li nga xamanteni li jang nako té te suñu dëkk soxla ko yeneen dëkk ma gis ni euh, Mansour mi mu ngi wër Sénégal di former ay nit ci walu microfinance di former ay kuréel xamna ni ne mu ngi dem bitim rew di fa former ay nit ay kuréel ak ay organisation banque mondiale di jël di ko muy former ñooñu finance islamique si rewu diine li li rewu l'islam la na jek ma yen mbiru microfinance yen ni mo leen gëna a parce que ay groupement ngeen li ngeen bëgg mo moy ngeen am moyen yo leen liggéeyé te moyen rek xaalis lañu xalaat te finance islamique bokk na ci li gën yombalal jigéen ñi ak groupement xali goor yi liggéey parce que man bo mu des yaafus nak ku yaafus ak ku bëgg lu yomb nak ken mënu ci mom dara wolof njaay mo naan bu for yombé seug jafé bo déma bu finance ko wax mu lal moyen moyen moyen gis naa fi mbokk yu bëri naan moyen moyen jël naa ay moyen jox ay nit mais tous defuñu ko moyen moyen moyen moyen nga jël moyen ne leen moyen ngi ni yàq ko ba par ñu bëgg lu yomb ñu lay wër di laqat ku yaafus ku bëgg lu yomb sa dara du da sonal nit ñi rek finance islamique ak projet yi may wax man xam naa ni mansour mansour du ma géwalam mansour dafa suur balaa muy dugg politique may na lu mu ko doon may nekkul di tëll tëlli pour wut lu ma am nekkul di tëll tëlli pour tabax étage doolem ak xam-xamam yàlla def noonu nit nag yëwan ci sa alal yëwan ci sa xam-xam loolu mooy sunu mission sur dama xam ne li mu xam te yàlla dénk ko ko mu koy def feneen a ah, balaa ngay laax jaay laax la fii nga dëkk fii sa waa ga dëkk kenn gënu leen yellool li nga mën te Ross Béthio mii Ross ci bi touti na ci amna yo xamanteni ni dimension départementale la am euh, balaa mu ko doon meuna def ñu jox ko département bu fekkoon ni tolloo ni si jamono bo xamanteni ab département nguur gi daf koy may possibilité muy tëral ay terilinam di def ay problème euh, programme développement kon département bu ko Mansour bu ko ya, buñ ko denkon département Dagana mu defar ko parce que yalla jox nañ lu ne yàlla jox nañu suv, jox nañu ndox jox nañu xam-xam ak ay boromi xam-xam ñun ñoo si des département bi bii waruñu ñi kenn waalu sax laa war a wax waruñu ñi kenn yàlla jox nañu lu ne ñun ñoo si des te ko ko dénkoon tey département Dagana mu farang laay tok defar ko te wutu lu mu def si poosam de wax naa ko sànq xam-xam bi ko yàlla may yewon bi ko yàlla may disponibilité bi ko may bu ko yéenee way way way way way dëkk war nañ ci profité ñu sagan nak ba li dal ay rew dal ay dëkk dal ñu ñi ñu ngi naan raté nañu rendez-vous manqué 1962 Mamadou Dia bu fi nekkon ba ah bu Sénégal yi xamone parce que koku dafa amone ay pexé dafa bëggoon réew mi am xam-xam bo xamanteni bi amna na ñu ko bëggul parce que arrangé wul ñenn ñi ba bu ñu nak ba li raw ñu yàlla de moo xam yalla mo xam li bax yalla mo xam li gën ñun yaakar ak sabablu rek la am waye won nañu lo xamanteni mi yaakaar nañ ku ko dénk dëkk bi ku ko département bi mu tekk si yon defar ko lire na si ben programme tay kenn si candidat yi ni def fi def usine so xawma ma raay sunu nag yi sama jarbaat bi sax li fi nekk doyu ko fan lay jëlee ay nag fii amul fi gétt boo xamante mën na fi am meew ak soow boo xamante bi jar na ngay def usine programme bi romb na Ross Béthio programme soow programme soow romb na Ross Béthio jot naa la ko communalité l'intercommunalité communalité diggante Ross Béthio ak Niit ak Ronk am na fi bërëb boo xam te buñ ko nangoo teg ci suñu loxo ñetti communes yooyu

waxtaan nañ ci ay programme yu bëree bëri bëri bëri yoo xamante nii li ma leer ba leer moom mooy yàlla may na ko te kenn war ko ko añaane Mansour bunt bu mu fëgg yàlla ubbil ko ko parce que gis nañ ko jot na fee wax waxu bailleurs de fooy yi naka la leen fi indi benn projet programme bu ko ficelé bu leen ko présenté ñoom xam ne ñoom xamante nañu ñoom xam nañ ko moom xam na leen bu ñu fi ñëwee xool ni fii bu ñu fi defee seen xaalis dina génn du taxaw li si des kay xanaa waa Ross Béthio encore une fois waa Ross Béthio ñooy doon problème bi waaye du ñeneen bailleurs du fonds yi borom xaalis yi ñoom li ñu bëgg rek mooy ku jël seen xaalis liggéey delloo leen seen bénéfice liggéeykat yi kay ñoom ñoo am problème moom mooy ñun mbir mi si ñun la des te ni ma tudd ci encore yabuma leen nag waaye candidat yi ma gis fii amu si kenn ku am dimension national maanaam ku ñu xam daal ku ñu xam ci Sénégal bi bëriwut wala xaw ma leen xamante nañu amu si kenn ku turam di génn Ross Béthio fii wala bureau bu muy liggéey Dakar wala dafay day liggéey Dakar amu si kenn ku am dimension internationale koo xam di day génn bitim réew kii mën nañu tase ay réunion bitim réew te du ma gis duma ko gis waaye xamante nañu si façon liggéey bi ñuy liggéey kon nag maa ngi leen di ñaaxaat. man de bu sama rakk wala sama mag nekkoon ne new na tey day nekk dafa bëgg nekk candidat mairie dinaa ko xamal ne duma ko woote parce que xamal naa ne amulul mairie bi njëriñ xam naa ne amalul dëkk bi njëriñ jaru ko man dëkk bi moom moo ma ñor te su ma gisee koo xam ne kii laa yaakaar ni man na yor dëkk bi yóbbu ko fi ñu koy yaakaaree ama si xaar mi yàlla élection locale bii moom ma booleeg Mansour buñ ci paree législative lañ jëm te duma ma gis moom bokkuñu fu ñuy wote bokkuñu fu ñuy wote parce que côté boobu bokkuñu fu bëgg a bëgg bu ñu jàll si élection présidentielle bokkuñu fu ñuy wote mais lii nga xam ni mooy suñu dëkk bi ñu bokk te ma xam ne mënoon la dëkk bi dara te ma xam ne am na xol bi ak xarañte bi moom lay jàppale te maa ngi ñaan nit maa ngi ñaax waa dëkk bi nañu bàyyi xëccoo yeeg yeneen yi nañu bàyyi yooyu na leen de côté li tubaab di Mansour c'est l'homme de la situation jàppale bi ma koy jàppale c'est un choix responsable mooy Tanef bi war dama xam ne tànneef bi war mooy Mansour 2014 rëcc na élection bi ñëwaat na sept ans après wala waaw sept ans après Mansour mooy le choix responsable moom mooy choix bi nga xamante ne bi yaakaar nañ ni moom moo war. parce que lim ñu mënal gisuma fi keneen ku ko waral ñeneen amna ci ay xarit wa affaire du mbiru xarit du mbiru mbokk. Euh, comme ni mu ko waxe li ci am solo moy man tay c'est vrai maa ngi laaj Ross Béthio mais dama gëm ni tamit buma demone ba jot dekk bi ki personne ressource la ba nga xamanteni ay xalatam man soxla nako te yaakaar naa ci wax bi programme bi Senghor mo doon coordonner programme bi beurena ay point yi nga xamni sax évoquer wuko ci walu jammo sax. li nga xam ni entre agriculteur entre pasteur ñiy bay ak ñiy càmm yi ngi fi daan dégg yëpp ci ay xiiro ak ŋaayoo wax dëgg yàlla fexe ba loolu mu wàññeeku. beneen bi tamit euh, dafa tombe parce que Alioune Ngaye mii tey moom moo jiite Grand Digue te Grand Digue Téléel casier la ba nga xam ni y'a 3600 hectares te dégg nga tey dem na ba wax man nit bu waxee yenn kaddu dama koy sopp ku taxaw daal ni ma buñ ma joxoon tey. tableau ak créer, ma démontrer moy qui rosbe ci soxla nako te daañu Amat, inshallah yenen yeneen sank ma ngi joggé ci pàkk ba nga xamni lepp luy produit maraîcher fa lay joggé te bama waxtané ñom ba pare dañu ni ma dafa yow de am nga fi ñetti téeméeri carte munima am nga fi carte parce que li nga fi wax candidat fi donc te lip wax dëgg yalla ki dama échanger ak mom waxnako à presque pendant trois heures quatre heures d'horloge ci guddi boobu temps maa ngi dem Diamniadio liggéey ba vingt heures jóge ñaajo dem këram ak distance bi c'est presque une trentaine de kilomètres dem toog ak moom di ko déglu de A à Z keroog moom mooy wax man may déglu di noter ba ma yeggee sama kër la mu doon wax yëpp dama ko bind couché ko sur papier léegi léegi suñuy communiquer communication yi damay jël dama am cahier ba nga xam ne fa laay fa laay noter lépp parce que loolu dama jàpp ni xalaat yi yëpp tey jii. yéene la également bi mu am pour dëkk bi te nag wax dëgg yàlla lottoon na ci parce que bi ma ñëwee sax may naan grand bi moom mbaa danu danu danu kii mais wax dëgg yàlla cofeel bi mu am ci dëkk bi ñaan ko mu jaral ko tey mu jël ay otoom di déplacé wu di wax ak nit ñi di leen exposé loolu je pense que loolu sant yàlla rek damay wax ni yàlla bu bëggee réaliser dara day fexe ba xel yi ànd dëppoo. te li fi tamit ci ay walu relation historique ñi nga xamni dëkk bi sanc motax dëkk bi génération yitei, tay man de wax dëgg yalla xalé yi dam leen te doyen man koy wax souffre man ni gis nga ni Mansour Ndiaye jël na un centimètre ci mandat bi nga exécuté wala luko ko mani ndombal nañ man dama ni bu ma naroon am un centimètre jël naa ko bàyyil naa ko man samay frère jël naa sama trente hectares yi nga xamante ni am naa ko dans la commune de Ronk bokkul sax Ross Béthio ma jël ko tekk ci loxo Sidi Dieng kenn la ci responsable yi ma ni ko na jël ñu fexe boucler financement bi installé fa trente jeunes nga xamante ni dañuy pratiquer agriculture mi ngi fii ci booru Mbundoom fu mu nekk nii ñoom ñoo ngay préparé wu pour bay loolu pour liggéey ko yéene googu laa ci am. te keroog engagement bi ma jël par rapport ak jeunes yi ci wàllu usine ci wàllu yeneen yi nga xam ni demain bu fekkee am nañ fi euh, euh, euh, zone industrielle lu bëre dana fi mën a ñëw. li mu wax également ci wàllu suuf sa nga xamante ne tey jii incohérence territoriale yi maa ngi ci doon waxtaan ak Babacar Diop xëy na ci projet bii nga xamante ni bind nañ ko ba pare waaye xëy na kenn génneegu ko yenn incohérence yi daañu ko régler ba Ross Béthio assiette foncière am gën a yokku. muy surtout projet bi nga xamante ni mi ngi fii pour ñu récupérer waat suuf yooyu nga xam ni dana am la nga xamante ni daañ ko fa mën a def moo xam ci culture fourragère ci wàllu nag yi mu doon wax man gis naa lu gële insémination artificielle def nañ ko fa ba nga xam ne ay nag yi nga xamante ni mais bu ci nekk li muy produire ci soow par jour kenn xamul nu mu toll te nit nag war ngaa mën a am say nag nagu cosaan ak yeneen mais war ngaa mën a tamit am leneen la nga xam ne dañ la indil ay revenu li ma bëggoon jeexale rek mooy wax nañ ko keroog bi ñuy wax suñu programme lu ñu mënte def ci Ross Béthio l'infrastructure. xam ci wàllu infrastructure li ñu gën a yitteel ji ñu ba niveau de vie bi mu yok. parce que nit ki bu yokkoo rek da ngay sentir ni dana def yenen yi nga xamanteni dana investir dana def li dana def lële. Njaag nak daf may wax la nga xamanteni ni ci gëna frapper moy concorde ak djubo ak and bi nga xamanteni ni wara am ci digënté nit ñi. ñu respectante également ba nga xamanteni kenn du jël sa morom rek jàppe ko comme ben objet man de wax naa ko nee naa leen un yi nga xam ne moo jiitu un an yooyu daañu fexe ba lépp luy ndox bu sell lépp li nga xam ne mooy courant lépp li nga xam ne mooy énergie yu mel ne solaire fu courant bi mënul àgg ñu fexe ba nit ñi vraiment nekk ci jàmm ba nga xamante ni nit ñi après daañu xalaat leneen la nga xam ni moo leen di jëme kanam dëkk bi nag faw ñu waxtaanee ko parce que dëkk bi mënuñu ko bàyyi nii machine ak lépp ceeb ak lépp jaxasoo ñuy dox di daw ci kaw ceeb bi tiep nga xamanteni tay boko boo ko 15 minutes si ben séchoir mu permettre la nga nga nga sécher ko nga dem defi sa liguey nga ne fa mel na di weer ak di weer yi nawet bi di la fekk taw yeeg ainsi de suite. donc dal vraiment ñu def lu dul sant keroog bi may wax ak mom Senghor mi ngi ni tok euh Senghor vraiment dafa am ben engagement débordant ci li ñu nek ni daawul politique mësta politique je ne l'ai jamais appelé musuma ko wo ni ka kay kay bokk ci affaire bi.

ñoo ngi sant yàlla ngoone santal yàlla tamit ba kii tey ñëw sa kër ta xamoo ko te tamit ay mbokkam rek ñoo fi nekk te mu yéene leen jàmm tamit di ko dox te mu yéene leen jàmm parce que kilifa yaa ngi koy xamee ci ni boo waxee turam koo wax turam mu taxaw déglu la kilifa ci loolu nga koy xamee waaye kilifa du ci jaay jaaylu kilifa ak sol costume ba nga xam ni yoroo ko man de wax dëgg yàlla chapeau chapeau laay wax parce que kii ku ma naw la te nee naa même Mansour bu ñu ma joxoon tey jii bu ma naree dévier kii de bu ma wooyee teg ma ci yoon ni ma jaaral fii dama fay jaar Alioune Gueye mii bu ma nee jaaral fii dama fay jaar Senghor Sow mii tamit jox naa ko cër boobu bu ma nee jaaral fii dama fay jaar. donc vraiment grand ñoo ngi lay sant di la gërëm li nga fi wax yàlla na dugg ci xolu doomu aadama yi xam naa sa xol la jógee yàlla na yàlla dëgëral ba ñu gañee mairie bi ba nga fi ñëw di def ak coopérative yi yeneen séance ci wàllu mbay ci wàllu pâturage ci wàllu yeneen ak yeneen bi nga xam day jëmale Ross Béthio ci kanam jërëjëf merci beaucoup